ci biir xewtewu semaine sainte bi ay bés yu sell yi dana ñu amal lii lee nga xamante ni moom mooy arxemes gu sell gi moom mooy ibbi li ñu oowee tridum pascal boo déggee tridum pascal ci latin la mooy di ñetti fan yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a fës ci wàllu ay bés yu sell yi ci bés googu arxemes gu sell gi dañu fàttaliku lii lee nga xamante ni moom mooy reer gu mujj ga reer gu mujj gi nag moom moo wund li nga xamante ni moo di jeetaay labe ndaxte ci reer gu mujj googu la Yeesu Kirist boppam daal di sos li ñuy oowee Eucharistie njàngaat yi mees ba santaane ngir ñuy def lii léegi di ko koy fàttaliku ci waxtu boobu ci wàllu googu la ñuy gën a màggal li nga xamante ni moom la ñuy oowee sacerdoce mooy maanaam jéetaayi labe dina am itamit ci biir njàngaati mees googu fa ñuy raxasalee tànk yi ñi nga xamante ni ñoom la ñuy tànn ngir loolu di firndeel ne ni ko borom bi santaane dafa ñëw surgawu ñëwul ngir ñu koy surgawu dama ñëw ngir surgawu ñëwuma ñu may war am suñu diggante na leen ko defalee noonu laa bëgg ngeen koy defee itamit loolu ari kàddu bu borom bi aljuma gu sell mi mooy aljuma bu mag ji nga xamante ne ci at bi moom la ñuy gën a fësal coono wu borom bi yéesu ba ñuy xool croix ga nekkee jumtukaayu toroxtaange ga waaye mu soppi ko mu doon jumtukaayu mucc ga croix gu sell sell gi nga xamante ni dañ ko jaamu ci bés boobu ba ñu koy fàttaliku di fàttaliku donc coono yi Kirista bi jànkonteel ci bés googee ba noppi danañu amal itamit li nga xamante ni mooy ñaanu mbootaay gi ñaan gu magu jàngu bi nga xamante ni bàyyiwul kenn ci ñaan googu ñëpp lañ ciy ñaanal ñaan googu muy waa jàngu bi muy waa àdduna si ak ku mu mënti doon moom la ñuy ñaanu mag bu jàngu bi aljuma bu sell bi mooy bi nga xamante ni amul mees bés boobu dong ci biir diine bi la amut mees dinañu def lu ñuy oowee toogaayu coonowu Kirista bi ak itamit jaamu croix ga su ko defee ñu daal di dellu ca kër yi ci noppite ak ci tekk tekkaaral mel ni ñu nekk ci dëcc gaaw ga nag ca guddi ga surtout la amal li ñuy oowee messe de minuit bu ngonalu pàkk gu sell ga ngonalu pàkk gu sell googee la ñuy fenkal leer gi nga xamante ni moo fenk ci suñuy lëndëm yi dinañu am ay baptisé dinañu am ay communié dinañu am ay confirmé ki ay mariage loolu la ñuy oowee sacrement ci biir jàngu bi maanaam liy sellal muy ñi dab si ngëm gi ñu war leen batise ci guddi boobee daan ci amal itamit li ñuy oowee rénovation de promesses baptismales maanaam e salaat suñu sasu ak suñu takkutee ci biir jàngu su ko defee ni mel ba ca diibeer ga nga xamante ni moom mooy doon diibeeru Pâques ñu dund ko noonee di gërëme yàlla bu baax a baax fi may taanalee moo di dafa am ci barkel yu mujj yi barkel gu am solo buñ ci tudd mu ni bésum coono ya jeex nañ léegi nag dañu topp ka dekkiliku te di wëyal coofel gamu wone ngir mu sel àdduna si loolu moom mooy yonente gi nga xamante ni mooy ndënkaane gi nga xamante ni moom lay jàngu bi di bàyyee ku nekk ci taalibe yi ngir mu koy jëfe di koy dunde abbé lan moo indi euh, nit ñi di wax lundi de Pâques te fête bi dimanche lañ koy màggal loolu tamit lan ngañ ci mën a leeral bu ñu noppee ci Pâques bi dafa am lu ñuy ooy octave de Pâques maanaam juróom-ñetti fan yi topp Pâques ya ci juróom-ñetti fan yi topp ca Pâques ya lundi de Pâques bokk na ci mardi de Pâques bokk na ci mercredi de Pâques bokk na ci bëcca sam di de Pâques moom mooy ay bés yi nga xamante ni ñoo topp maanaam Pâques loolu nag ci njulite gi la te bu ci nekk ci ay bés yooyee am na xeetu ñaan bu ñuy yëkkati ñaan ko ci bés boobu looloo waral ñu naan lundi de Pâques aajuwul nag fërie bi laalewul dara ak célébration wu culte bi férié bi moom loolu ci wàllum administration la rek waaye li tax ñu koy ooyee lundi de Pâques dafa fekk mu bokk ci li ñu ooyee octave de Pâques maanaam juróom-ñetti fan yi nga xamante ni ñoo topp bésu Pâques bi mbas mi gis nañu ne euh, mu toll nii wàññeeku na bu baax a baax euh, ay at yu ñuy euh, weesu léeg nag dañu doon am gàllankoor ci nu ñu defee programme bi ren nag ndax dina am soppeeku. coppite yi de moom mooy rek xanaa li ñu mbas mile na mu delloo gannaaw may ñu mën a daje am ay mbool ay ndaje wu mees comme nañ ko daan amee loolu boobu mbas bi egg see gut waaye loolu terewul nag ni mbas bi ba léegi jógewu fi mu ngi fi mbas bi ci boppam ba léegi mu ngi indi ay loraange ba tax na ñun ci suñu bopp ñu ngi ñaax euh, taalibe yi ñu gën a farlu ci lépp li nga xamante ne mën nañoo moytandiku ñu jàpp ci loolee wala ñu lor suñuy morom moo tax ba léegi ñu ngi digal nit ñi ñuy sol masque di jëfandikoo gel hydroalcoolique yi di jëfandikoo ci biir ñaanaat yi mais si dandalante bi nga xamante ni danañu mën a may ba kenn du mun a wàll morom bu fekkente ne am na ko doomu jàngoro bi ba mën ñoo may itamit ñu gën a mun a dund suñu njurite ni mu gën a baaxee ni mu gën a rafet. laaj bu mujj bi rek mooy euh, gis nañ ne ren ji ñaari koor dafa daje ñu gis ni que itam euh, li nga xamante moom mooy dëkkandoo bi macha allah ci Sénégal rafetlu nañ ko bu baax a baax loolu lan nga ci wax. loolee de ndogalu yàlla la. ndogalu yàlla boo ñu may. ñu gën a mën a firndeel te gën a mën a jàpp ne yàlla gi ñuy jaamu ñun ñëpp mel na yàlla gi la. mooy yàlla coofeel gi. mooy yàlla juboo gi. du yàlla gi xaajaatle du yàlla gi tas diggante yàlla gi di samp coofeel la ci biir euh, xeet yi askan gi diggante diine yi muy lu am am solo nag ndaxte xam nañu ne Sénégal de li ñu maam ya maye dund ñu koy wéyal ñu toll nii tey moo di toujours déggoo gi am ci diggante diine yi diggante këri diine yi diggante tarixa yi yàlla santul kenn di koy taxawal di xam le ne maa gën wala déedéet gënaat léegi gën ci suñu biir du njulite bi dong waaye jëf yi àndaaleeg njulite gi la rawaat le ay jëf yu baax ak gën fuuf rawatle ay diine te loolu la yàlla santaane yàlla dafa santaane ñu soppante suñu biir nam ñu soppe moom mi ñu bind lii lee nag firndeel la misaal la ci li gën a tuuti ci li ñu yàlla di woon ba yàlla def ba ñu mën a bokk ay bésu koor ba di koy dund ni nga xamante ni noonee la gën a rafetee ci wàllum jullit barke démb sax gis ngeen ay waxambaane yu jóg ay kerceen ak ay sëriñ daal di booloo ñoom ñëpp def benn xol munoo xa raajaatle kay kerceen ka kay sëriñ la lu dul ci kurus gi ñuy takk ndaxte ci diinay lislaam am na kurus ci diinay kercen am na kurus itamit xanaa loolu la mën a rañaat waaye mënoo rañaatle moo bokk fii wala kan moo bokk fii bi nga xamante ni moom la ñuy oowee ci suñu réew mii Sénégal dafa sax ci waxambaane yooyu ma leen di ñaax bu baax te di rafetlu bu baax a baax li nga xamante ni moom lañu ñu def ndaxte dafa di wane gi ñu war a wune wasaare ci àdduna si suñu bàkk bi dafa am lu am solo mu wax nee ne nañu diirantey mbàgg te xam ne ñun ñëpp benn lañu ay mbokk lañu boole lépp li nga xamante ne mooy ndox beeg gàncax beeg ak la ci toll ngir mën a firndeel Afrika ci boppam ne ñun ci suñu bopp nuyu nañ leen nuyoo gi ñuy nuyoo Afrique nag moom mooy wane yu baax yii le nga xamante ne mun nañ ko wasaare àdduna si sëpp mën ci jàpp mën ci roy itamit ndaxte booy roy da ngay roy lu baax te Sénégal am na lu baax lu bari lu mën a wone ngir àdduna ci mun cee topp loolee di dialogue islaamu chrétien bi ci la bokk ndaxte tey wax dëgg yàlla dale ko saña ñoom maam yaa seen di candum muy Abibu Daxa Taal Seydou nuru Taal sax ci kawam maam Abdoul Aziz muy itamit Maodo Malick muy itamit sëñ Touba sëñ Bamba ñoom ñëpp dañoo mës mës di liggéey ngir réew mi doon benn lëkkaloo googu nag lañu donn ci ñoom ñu war koy fësal ñu war koy siwal ba suñu dëkk bi le doon dëkk bi ñuy ñëwee jàmm ji doon dëkk bi ñuy xoolee coofeel gi am suñu diggante te itamit ñi ko suñu monsieur Benjamin di sopp di koy waxe ñu bàyyi mu sant bi parce que mu sant gi amul njëriñ te yóbbuwul kenn fenn jërëjëf